ma ni dañuy dalal ñi nga xam ne ñooy yëngudu ci wàllu boole ndax defoon nañ ko fii daaw mu am solo lool mbokk yi sàkk woon ko ñu wutaat beneen groupe boo xam ni war nañoo taxawaat fii defalaat ñu si ay liggéey delloowaat nit ñi si alquran ak ni mu nuroo ak ni mu fasanti ko mbooloo moo xam ni sëriñ naa Jóob ngay moom moo ko jiite ànd ak oustaz Saliwu Sàll alaaji Bàcci Jóob Modou Deme ñu ngi leen di fàttali itam sëriñ El Hadj bu Louga nga xam ne mooy ñooñ ko ñooñ doon tàggat xale yi ci wàllu boole tam yaatu woon loolu si àddina bi moom itam mi ngi si jataay bi fekkee liggéey bi di ko rafetlu kon bisimilah Serigne Cheikhouna Diop. alhamdulilahi rabbil alamin falillahi alhamdu rabbi samawati wa rabbil ardi rabbil alamin wa lahu alkibriyaau fi samawati wal ardi وهو العز الحكيم اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم عونك يا معين وبك نستعين ربي يسر وتعسر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk julli yu tedd yi fi teew soppe alxuraan yi góor ñi ak jigéen ñi ak kilifa yi ñu ngi leen di nuyu baax di leen siyaar leen ndokkeel ci weeru tedd wi di weeru alxuraanul karim ñu ci amal jataay bu tedd bii li waral sunu teewaay fii mooy dafa am lu am solo lu loo xam si danga ko fee fekk ñu koy tudde ay boole mag ñi fonkoon ko lool te boole nekk lu am solo loo xam ne ki ko xam ki ko man pour alxuraan mu fëtt ko lu jafele doon ci nga xam ne day tax nga am nga am ak xereñ ci alxuraan a itqaanu bil xuraan ak xereñe danga koy am ci alquran bu baax alquran xam ngeen dafa nekk lu yéeme loo xam ne jinne yi sax mi nga ko déggee ñoom dana wax ne dafa yéeme inna samihna quraanan ajaba alquran nekk lu kéemtaane loo xam ne nekk lu jafe bari lu nuyoo bari lu nuroo lool bari aay yoo xam si benn baat moo leen di séparé moo leen di séparé bari runge li ñuy wax runge mu bari ko lool yaakaar naa bu kilifa yi waxee nga xam ne seen yitte yépp seen guddi seen bëccëg seen ngoon mooy yëngu ci téere yëngu ci téere suñu borom bi di ko xamle di ko jàng di ko bind yaakaar naa ñii bu ndikkee da xam lan mooy boole ku mel ni sëriñ Saalihu Sàll dëkk Tuuba Jannatul Mahwa nga xam ne itteem yépp mooy alquranul karim ku mel ni ki sëriñ Modou Dem dëkku Touba Daaru Marnaan moom it nga xam ne yitteem yëpp mooy alxuraan suba ngoon ak ku ci mel ni alxaaji Masamba Diop dëkku Touba Asalem moom it yitteem yëpp mooy alxuraan xam ngeen ne mag ñi dañ doon def alxuraan boo ko mokkalee ba noppi nga def li ñuy wax beqi beqi mooy roba bu ci nekk danga koy jàng lu ma téeméeri yoon nga taree ko boo ko taree ba noppi sëriñ bi bindal la ci suufu àlluwa ji ay boole mooy ay boole mooy baat yu nduróo yi na la demal nga jàngat ko juróom fukki yoon nga xam ne boole nga boole yi ak robo bi jàng ko juróom fukki yoon nga xam ne loolu moom jeex na moo tax bari na mag ñu yu bari dem na ba màggat man naan dafa naag sax waaye alxuraan ji du ko rëcc bokk na ca yooyee boole ma joxe misaal comme lu mel ni ki ba masaan bind robo bu mel ni ki ah, robo bi nekk suutu bàqara daana gis mag ñi daan la laa bindal ci suuf kum yaa nga laan hum yaa nga laxraaf fakku daane laan wakku daane laan raqadan laan nëwut feeca laxraaf wat xiita laan xiitawat laxraaf yox far laan tux far lax far laxraaf xataa yeekum laan xatti aatuk laxraaf wasa nasiidu laan sa nasiidu laxaraaf salamoo xawlan laan saloo minum laxaraaf fa ansal naa laan fa asal naa la laxaraaf bu ko defee loolu boo xasee maîtriser pour nga rungeeti foofu ba lu mu jafe-jafe baax si rek danga xam ne kii moo bokk fee kii moo bokk fee kon ki ñu njëkkee mbirum boole pour mu leeral ñu ci mooy sëriñ saalihu sëriñ saalihu sàll dëkk Touba jant Mahwa moom la njëkkee mu andi ñu ay boole sëriñ Saaliw yow li ñu lay laaj yow boole bi ñu lay laaj yow sëriñ mooy siin saari jorngel dañu leeral luy jorngel siin saari jorngel xayin gaa di ndaanaan diggante jorngel ak ndaanaan ak xayin googu nag bëgg nga leeral ñu ko bismillah bismillahi rahmaani rahim bokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu tibalo ñëpp ak mu mel ni xam naa dañoo noggatu waaye ñu am kàddu yoo xam ne rek insha allahu taala danañ ko leeral suñ kemtalaay kàttan waaye fi ñuy tàmbalee rek mooy seeñal liggéeyab mag ñu baax ña ngir ba ngir gaa yu baax ya xamle leen te wéy leen dana waral seeni saxaaba roy leen dugul ko nag ñiy bind ngir yii raaf na dugul ko nag ñiy tari xam-xam daay na su dugul ko nag ñiy yeete gaaya yàndoor dootuñu yeewu abadan ba xëy buur kon bind ak jàng munta tàqali ko alxuraan ju dëkk nag boolee ko daan indi ndax Cheikh Saliou Mbacké radiyallahu anhu da daan wax naan alxuraan mii di bu doonub tool la ma ne boolee li ko ñakk boolee tax dara du ci dugg luñ ciy dolli boolee tax duñ ci wàññi dara loolu mu ma laaj nag muy siin saa di jor ngel xayin jaadi ndaanaan siin si jorngel mooy siin su wow ndax siini mboccor am na siini sinara am na siini sinara siin su siini combañ siini mboccoor mooy siin su tooy am ñetti fepp siini siin su wow nag mooy siini jorngel boo déggee mu a siin saa di jorngel xayin jaa di ndaanaan xayin gi daa yomb def lool xaaf mu di la indil nag baat yi ko bokkale mu ne tax tasiloo nga jigéen mooy sóoratu nisaa yi yu siiquhoo nga biri mooy sóoratu ibrahim wa asbaxa saaru luqumaan saabiqaatin saba in muxtasalun njombaan siimas xabatin ca balat baat yooyu mu la wax fi mu ne gum ci mën a doon bu siin soow si ñëwee rek xayi ndégal moo cay topp moo indi siin saa di jor ngel xayin jaa di ndaanaan baatam ndaanaan it mooy waral ñuy bind par boole du leer kon kon kon nag ñuy tegal léegi foor ci kaw danga may dégg foor ci kaw foor ci suuf dogul dafa jokkoo foor ci kaw foor ci suuf dogul dafa jokkoo lu waral loolu foor ci kaw foor ci suuf te dugul dafa jokkoo baat ko indi mooy miikaa iila laan fil miihaadi nga lan faal min mahaariba wa tamaasiila yépp saba in bi ma saa bii ha yaar tafsilaak mulki aaliihim linsaan foor na ci kaw foor ci suuf da koy xëcc ci kaw xëcc ko ci suuf te baat bi du dog tey jokkoo jërëjëf jërëjëf sëriñ Saliou Sall macha allah macha allah sëriñ Sall kon xam naa lii mooy wane ne alquran mag ñi dañ doon gëstu bu baax am na menn kàng moo xam ne benn kàng la bu jigéen boo xam ne si ne moom nee na kii nekk sëriñam ku mën alquran lay doon nee na moom turza la tudd waaye gaa yaa ngi xëy di ñëw rek kaa ngi di ñëw rek kaa ngi ñëw rek ku xëy ñëw wane sama alxuraan waaye kenn turuyu ko benn kaa ngi jóge fee ñëw na ko man xaanihi laa tudd man xaanihi laa tuddu di magum ilaa nabaxtukuma dëkk mbargaan diggante xóot ak raxdi ndeka loolu mooy tur su xaanihi laa nabaxtukuma bi taawilihi mu ne ko man xaanihi laa tudd di magum ilaa nabatukuma dëkk mbargaan diggante xóot ak raaj wasalaama jërëjëf sëñ sëñ sëñ Saliou masha Allah kon ñëw ci alhaaji Masamba Diop waaw alhaaji Masamba Diop Touba Asalem yow nag ñëw ci nixmata taajoor am na ñu naan nixmata taataalli waaye taajoor woo leen bëgg sëñ bi nga leer lañu ko asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu nuyu ñëpp di ziar ñëpp maa ngi ñëw yéen ci baat bu ñuy wax nexmata nexmata dafa am ñaari xeeti bindiin dafa am nexmat boo xam ne taatom rek la am nexmata boo xam ne da ngay def xëy sa xiir jël ñaari tom teg ko ca mu ñaari xeet léegi nag dama lay wax benn contraire bi benn bi maanaam benn boo xamee bi des moom du la gaañ bu njëkk bi ab bi nekk nexmata taatombe kooku yaun la ya mu ngi signifie dix alif di boole ko muy onze is ci njëkk mooy waskuru nicmatallahi aleykum wa ma anzala aleykum min alkitabi wal hikmati yaxidukum bi moo ca baqara mooy taw bi bi ci topp mooy waskuru nicmatallahi aleykum id kuntum aadaan fa allafa bayna qulubikum moo ca ali imran surat ali imran mooy ñaareel bi bi ko ñetteel mooy yaa ayuha alladina amanu yaa ayuha alladina amanu uzkuru nicmatallahi aleykum id hamma qawmun an yabsutu ilaykum aydiyahum fa kafa aydiyahum ankum mooy suratul maida bi ko ñetteel mooy alam taraw ila alladina baddalu nicmatallahi kufran wa ahlu qawmum daaral ba wéer xachar yéen bindkat yi <laughs> mooy ñeenteel bi bi ko juróomeel way way way taw doo nicmatallahi laa tuxsuuha inna l insana la zalum kaffaaru ba tey suuratu Ibrahima bu bu ko jaawalee suuratu Nahl nag Nahl bu nanguwul taatom bi bi ko juróom benn mooy wa bi nixmatillaahi hum yakfuruun ca suuratu suuratu suuratu Nahl yaa isbu waxallaahu bi ko juróom ñaareel mooy yaarifuuna nixmatallaahi summa yunkiruunahaa wa aktaruhum kaafiruun bi ko juróom-ñett mooy washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun mu juróom-ñett mu des ñett kon téere kaw loolu moo ci nekk bi ko juróom-ñeent mooy alam taraw anna al fulka fil bahri bi ni'matillahi li yuriyakum min ayatihi suratu bi ko fukkeel mooy yaa ayyuhannaas uzkuru ni'matallahi alaykum hal min xaaliqin yarzuqukum min as-samaa'i wal ard surat fatir bi ko fukkeel ak benn mooy fa dakkir fa ma anta bi ni'mati rabbika bi kaahini wala majnuun suratu tuur boo ko jaawale suratu xalam nag nu wal xalam maa yastur ma anta bi ni'mati kooku koo def noonu daanu nga masha allah masha allah tabarakallah alaaji ba tey Jóob comme ko jox nga ñu xeewal taataale mooy nixmata kon dañuy jox nag xéwal moo yërmaa ne ñooy ànd kon jox ñu raxmata taataale bisimilah ba tey raxmata dafa am ñaari xeeti bindin dafa am boo xam ne taa tombe la ñu koy ñu koy taataale xam ne da nga def xee saxiir def ñaari tomb ca kaw ci leer ñu ko taa marboot waaw arab yi di wax bi ci nag mooy yarjuuna rahmatallah wallahu gafuur rahim ku makkal waskuro fa raboo je njëkk fa muy daanoo fa laa ko daa fekk waaw inna rahmatallahi qaribun min al muhsinin ca suratul xaraaf xumus mooy ñaareel bi bi ko ñeent ñetteel mooy min amrillahi rahmatullahi wa barakatuhu aleykum ahlal bayt innahu hamidum majid suratu Hud bi ko ñeenteel mooy zikru rahmat rabbika xabdu zakariya suratu Maryam mooy ñeenteel bi bi ko bi ko juróomeel mooy fanzur ila asari rahmatillahi kafihil ardu ruum bi ko juróom benneel mooy ahum yaqsimuna rahmata rabbika xasam benn maishatin fil dunya bi ko juróom ñaareel mooy wa rahmatu rabbika xayrun mimma yajmaun ah ku gisaat beneen nag def ko noonu nag tooñ nga alxuraan <laughs> jërëjëf macha allah yéen a suñu borom barkeel lépp rek xam ngeen ne alxuraan dafa nekk lu lu lu lu kiimaane lu yéeme moo tax loolu doon a tax mag ñi doon wax naan pour tënk la pour mu gën laa jege ñu jekk ne la maatu magam maata maata magam maa ma magam naara naara magul kenn fekk boobu boo demee sutu waaqe dafa am maa magam maata naara magul kenn naara moom xale la <laughs> kon ñu jël sëñ mu dem sëñ mu dem dëkk Touba Daarul Mannaan xam nga am na loo xam ne si maanaam ma maxaaju uruf du ko génne bind du ko génne il faut ngay xam baat bi rek ndax alxuraan dafa bari fiima waaye dafa am fiima yoo xam ne du laale day am faa ak yërut miim nga doog a dikk liif nga doog a dikk lay laaj ba xam ñaar la ci alxuraan bismillah assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi nuyu mbooleem mbokk yi fi teew yëpp bàyyiwuñ kenn ñu fas yéene ñëw ci laaj bi nga xam ne laaj nañ ko mu jëm ci fii ma bañ laale ndax fii ma yi ci alquranul karim bari na lool yii dafa taqaloo yi dog ya dog moom lañuy wax fii bañ laale fii ma bañ laale ngay bind faa yërut miim lif gu dog dog caa teg la ca topp yeneen yi ci topp da ngay def faa yaa miim lif gu dog kon bi ñuy indi mooy faa yërut miim lif gu dog mooy fii maa bañ laale fii gi ak maa gi duñ bokk dañu leen di teqale moom nag yëul la yaa gi fukk la alif ki benn la ci xoroofi abajada mu ne fii maa faxal la laan du taaw ba caat ma la yaari fii maa faxal na moom ngay fekk suratul baqara ba ca jëkk fii maa faxal na fii anfusihinna bil maaruuf ba mu juba fii maa faxal na fii anfusihinna mim maaruuf boobu la ñuy wax du taaw ba caat ma la kon benn baa ngi noonu fii maa aateekum ñëw na ñaari yoon benn bi yaa ngi koy fekk suratul maida mag ñi daan ko tudde njoogu fii ma aatikum fastabiqul boobu moo nekk suratul maida ñaareelu fii ma aatikum booy moo nekk suratu ñu ne fii ma uxiya baamu lanhaam bu ñu waxee baamu mooy saar dañ fee waxoon benn wëlbatiku waxaat fa beneen moo tax ñu naan fii ma uxiya baamu lana xam kon ñett ñu noonu nga dem ca suuratul anbiyaa yi da nga fa fekk benn fii mastahat anfusuhum xaaliduun benn fii ma afattum fiihi azaabun aziim kon ñaataa ngi noonu juróom fii ma haahuna ma nga ca suaraa yi atutrakuna fii ma haahuna aminin moo nekk suuratu Shu'araa nga dem suuratu Ruum da ko fekk benn fii maa razaqnaakum fa antum fiihi sawaa'un moo nekk suuratu Ruum nga dem suuratu Zumar da ko fekk yaar fii maa hum fiihi yaxtalifuun fii maa kaanu fiihi yaxtalifuun kon mu des benn nga dem ci suuratul musni mooy suuratul waaqia fii maa laa taalamuun wala xad nas atalluulee falaw laa tazakkaruun kon yooyu mooy fii bañ laale masha allah tabarakallah kon sëñ mu dem jërëjëf li lay laaj bi lay laajaat mooy wàcceel mi la miim te war miim mi wàcc ko dem war mee miim bismillah bala ñoo tàmbali ñu fàttaliku suñu sëriñ bu baax sëriñ Dame Mané Guèye moom ñi doon jàngal yàlla dogal mu bàyyi koo fi ñu ñëw ci li mu laaj wàcceel mi la miim tawar mais alquran am na ci baat yoo xam ne ni nga déggee ñu koy waxe bokkut ak ni ñu koy bindee ndax boo déggee ñu ne am man dana ñëw nekk alif miim nunara dana ñëw nekk alif mimara miim nunara yëpp am man lañ koy jàng loo tax mu ñu ne wàcceel mi la miim boo bindee dangay def mimara ko jàll ca miim nunara waaw loo tax mu naan wàcceel mi la miim dañu bañ boo ñëwee rek nga jàdd dangay def alif def mimara doog a def miim nu nara boobu lañ naan wàcceel mi la miim te war mee moom nag ñeent la ñu ko daan wax naawe naawe mooy ñeent ci wàññi pël am man yakunu alayhim wakiilan soo ko dee bind da bind alif def mimara miim nu nara waaye boo bàyyee miim ka rek da yàq baat ba wa wa am man yakunu alayhim wakiilan laa taqum fiihi abadan la masjidu nussisa ala taqwa min awwali yawmin axaqu an taquma fiih fiihi rijaalun yuhibbuuna an yatatahharu wallahu yuhibbul muttahirin amman nussisa bunyaanuhu amman googu alif miim la ngay def def miim nu nara muy ñaar amman xalaqnaa innaa xalaqnaahum min tiinin laazibin bi nag suurat saafaat ma ngi daan ko baam kooku boobu alif mimara miim noonu la def ba ci mujj mooy am man yaati aminan yowma alqiyaama yamalu ma shitum innahu bi ma taamaluuna basir mi ngi sóoratu fussilat ñeen ñu naan ko sóoratu tafsil ci sunu ah, mbindum sëñ jëmb siise mii bañ cay jàng tafsil lañ ko doon jàngale asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërë ngeen jëf jàmbaari alquraan yi saalihu sàll dëkku Touba Jannatul Mahwa ak sëriñ Alhaji Massamba Diop dëkku Touba Asalem ak sëriñ Modou Dem dëkk nekk Touba Daaru Marnaan ñoom ñëpp seen guddi seen ngoon seen lépp rek mooy jàngale alxuraan ak di ko jàng kon nag société bi taxawal lii ñu koy wax C3S yàlla yàlla barkeel ko man damaa xool alxuraan gis na nekk alxuraan ñetti saar rek astaghfirullah ci rek gi sax alquran ñetti saaru moo ci am ñetti wu nekk ñetti aaya xam naa ne kaa yaa ngi may xool rek kaa ngi ñu ngi may xool waaye alquran ba alquran jeex ñetti saar nga ci fekk saar wu nekk am ñetti aaya suratul asri ñetti aaya fa am suratul kawsari ñetti aaya fa am suratul nasri ñetti aaya fa am naa bëgg jël ñett ñett yi rek boole ko ñett ñett yee société bi jëm kanam soqali ko daara soqali ko wasalaamaaleykum wa rahmatullahi jaajëf jaajëf sëriñ bi ah ah da ngaa bëgg a joxe kii bonus ah, ku ñëpp reer nga fande sa kër bàyyee sori xam naa loolu oustaz Alioune Sall dana ko xam laat sadra maam ku ñëpp reer nga fande mu ne sa kër bàyyee sori hmm. bi daar laan laatu daara laan walaa yu daara laan xayra mu daarin jigéen